bonjour. Après la situation du jour, je vais tout à l'heure euh, introduire Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mon collègue euh, le professeur Cheikh Omar pour vous faire euh, une situation des perspectives de l'année universitaire. Ce mardi 26 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens des tests virologiques ci-après. Sur 551 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 28 cas contacts suivis par nos services, trois cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1 cas, Thiès 2 cas. 50 patients qui étaient hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation l'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, l'État du Sénégal a déclaré 3161 cas positifs depuis le début, dont 1565 guéris, 36 décédés. Par conséquent, nous avons présentement en traitement 1559 patients le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. bu ma leen euh, jàngalee communiqué au bés bi si li ñu am si mbas mi ba pare danaa jox ministre bi l'Enseignement supérieur ak lépp lu jëm si njàng bu mag le professeur Cheikh Omar Anne pour mu waxtaan ak yéen ci li nar ci wàllu université yi ci contexte mbas mi tey jii muy talaata ñaar fukki fan ak juróom ben ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu doon def ñu mën a si juróomi téeméer ak juróom benn fukki benn test yi ñu def tey fanweer ak benn ñoo si ñëw nekk yu positif si fanweer ak benn yooyu ñaar fukk ak juróom ñett moo nekk ay cas contact yu ñu doon suivre ci suñu service ñett ndëkk moo si nekk ay cas communautaire si ñett yooyu benn bi Castor la nekk ñaari cees ñu jàpp ne

mooy ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukki cas moom la Sénégal déclaré si xayma boobu junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wér nañ si fanweer ak juróom benn génn si àdduna bon nag tey ñi topp di leen faj toll nañ si Du ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé de l'action sociale Nous ngi demandé population yi ñu topp bu baax ci pour que ñu mën fi guen ne bi ci nu mu Nous nous ñu ngi leen di remercier di jox kàddu gi suñu collègue monsieur le ministre Cheikh omar Anne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche